mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal Boucar Diouf di maire bu commune bu Joal Fadiouth tey ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na rawatina rawatina ci boobile commune ba mu fa toogee ba léegi lan la def ci wàllu réalisation euh, ak yan jafe-jafe la population ba yeewoo ca Joal Fadiouth la ñuy jànkonteel naka noonu ci élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 ak coalition yi nu mu juddoo ci kujje gi naka noonu sax euh, problème de positionnement bu ñu nemmeeku ci benn bokk yaakaar ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama jàll ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ci rajo réew mi FM 97.5 monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Rewmi FM. waaw maa ngi lay fay Mass euh, di nuyu auditeurs Rewmi FM di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina. Euh, askanu commune Joal Fadiouth mhm. Mhm. Uh-huh. comme à l'accoutumée niñ koy faral di defee ñu bàyyi la nga présenté Joal Fadiouth fan la faree ci Sénégal waaw Joal Fadiouth euh, mu ngi bokk ci Petite Côte euh, euh, mën naa ci fanweeri kilomètre de Mbour mhm. digganteem ak Dakar nekk à peu près téeméeri kilomètre fukk man ñu wax ne xam naa Joal Fadiouth li ko tax a gën a siiwal moo di euh, président euh, Léopold Sédar Senghor mhm. euh, moo ko gën a siiwal doon doomu Joal Fadiouth doon nit koo xam ne bind na lu bëree bëri ci Joal Fadiouth mhm. tax na ba dëkk boobu gën a gën a siiw ci àddina bi. alors est mën nañ xam par exemple depuis kañ nga nekk ci boppu localité bi. man depuis juin deux 2014 bi laa nekk maire de la commune de Joal Fadiouth. d'abord ñu tàmbali ko ak euh, ci wàllu secteur éducation. alors yan mhm. jéego nga def ba nga toogee ci boppu localité bi ba léegi ci wàllu jàng ak jàngale. bon xam nga déjà man jàngalekat laa. Mhm. maa ngi jeexal sama carrière ci euh, poste inspecteur d'académie. Mhm. kon euh, jàngale mooy li nga xam ne xëy na moom laa gën a maîtriser. dafa fekk nag Joal Fadiouth wax dëgg yàlla ci mbirum njàng am na. réseau éducatif boo xam ni euh, amuloon daanaka ay besoin mhm. ci euh, ay infrastructures yu bees mhm. euh, cependant fi bu nekk nii li nga xam ne bàyyi nañ ko fi daal moo di mhm. benn benn ancien lycée moom la ñu programmé pour tabaxaat ko pour mu nekk un quatrième CM loolu moom lancé nañu marché bi déjà il ne reste que ñu ñëw rek euh, commencé ko. Mhm. ak euh, benn école aussi benn euh, école primaire boo xam ne infrastructure yi daal doyuñu woon. Mhm. maanaam quartier bi mu nekk dafa yi quartier bu rëy bu bëri ay ay ay kii ay doomu aadama. Mhm. ñu waroon fa yokk ay classe foofu dinañ fa yokk juróom benn classe dinañ yokk tam toilettes yi dinañ leen defal tam bloc administratif. waaye daal xam naa ne ci gàttal moom. Mhm. Euh, Joal Fadiouth réseau scolaire am. Mhm. Euh, soxlawuloon ay ay ay ay infrastructure yu bees. Mhm. Euh, li ñuy def nag mooy at mu nekk accompagner nañ leen ci fourniture. nekk nañu aussi ñoo xam ne jege nañu mbokk jàngalekat yi ba dañuy accompagner. inspection bu mbuur ci bépp planification boo xam ne daf koy def comme approche pour am daal Euh, maîtrise bu gën wóor ci réseau éducation. est que mën nañ xam par exemple Joal ñaata euh, établissement scolaire moo fa am. Euh, na. Mhm. mën nañoo wax ne benn lycée benn lycée public la am. Mhm. muy lycée Léopold Sédar Senghor. Mhm. waaye am na juróomi mën nañu wax juróomi lycée privé. parce que ay établissement yoo xam ne dañu am enseignement moyen et secondaire. donc yu yu privé yu fa nekk. Mhm. Euh, am na aussi euh, ñetti CEM. Mhm. public. Euh, am aussi mën nañu wax juróomi CEM privé. Mhm. parce que école privée yi dafay am dafay am moyen et secondaire. kon école yi ci école ci école élémentaire itam cinq écoles élémentaires publiques. ak euh, ñetti école euh, élémentaire privée mhm. mais bari na ay daara bari ay franco arabe tam mhm. Mhm. Ah, kon mën nañu wax euh, par exemple école yi fa doy école yi fa nekk mën na couvrir population ba fa yeewoo waaw fi mu ne nii moom mën na couvrir population yi fa yeewoo mais nag comme dafa di dëkk boo xam ne dafa dafa am nu muy màggee dina soxla peut-être fekk benn at ñaari at Euh, ñu am quand ay yeneen école yoo xam ne dañuy dabi quartier yi nga xam ne dañuy nekk quartier yuy euh, yuy yuy yuy gën a màgg. Mhm. Euh, ce qui fait que comme ci affaire éducation dafay soxla nga jël école yi mu gën a jegeñ population yi. Mhm. dinañ soxla fekk xëy na ñaari at. Mhm. mais fi fi ñu toll nii moom vraiment bu ñu defee quatrième CM bi ma la wax nii. réseau éducation bi dina dina mot entièrement. est-ce que par exemple école yi méngoo na ak euh, jamono ndax seetlu na yenn ci école yi nekk ci fasantikoo ci réewum Sénégal ay abri provisoire moo fa nekk. non ab abri moom waxuñu ko fii ci ci kii bi ci commune bi quand même. Mhm. waaw vraiment li fi kii la comme waaw li fi école bi école bi fi amoon abri provisoire daal mooy bi ñu programmé les six classes là donc. Mhm. provisoire euh, amuñu ko ci biir commune bi. Mhm. kon mën nañu wax ci wàllu éducation teg nga fa ay jéego yu am solo. waaw xam nga moom comme xam nga dara du doy. Mhm. lu baax moom dara du ci doy waaye euh, mën nañu wax ni daal amul ay besoins réels. Mhm. yoo xam ne satisfaire ñu ko. Mhm. ci domaine nu éducation. muy ci infrastructure yi muy surtout accompagnement parce que xam nga. affaire affaire investissement du tabax rek. du tabax rek dafay laaj. Euh, jàngalekat yi par exemple nga xam nga am noo leen di gunge. Mhm. dafay laaj tam bu bu ñu waxee ne affaire bu ñu waxee ne affaire fourniture nga joxe ko à temps. Mhm. Euh, dafay laaj aussi nga doon koo xam ne. Mhm. Euh, fu ñu dajee war a xalaat ci dara yow nga am apport boo ci mën a kële. donc sur ce plan éducation moom wax dëgg. ah am naa yaakaar ne daal def nañ li war. gis nañ daanaka ubbi école bi ubbi na te jamono ji seetlu nañ ni wayjur yi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti li ko sabab mhm. nag bokk na si dund gi nu mu méttee jamono ji mhm. en tant que maire yow yan par exemple ban ndimbal nga def pour ma jéem a atténuer la souffrance des parents non kooku moom li ñu tàmm def mooy mooy fourniture yi fourniture yi daal la ñuy joxe euh, pulvériser école yi mhm. accompagner jàngalekat yi mais vraiment amul lenn loo xam ne dañ koy jël ci maanaam koom-koom di ko jox parents d'élèves yooyu fournitures yi daal moom la ñuy joxe accompagner les équipes pédagogiques. waaw lu am solo la parce que au moins loolu yëpp ñëpp a ci yem matalewul ñëpp waaye ñëpp ci ci a addu ci beneen poñ ci wàllu jumtukaay. est-ce que par exemple Joal yoon ya fa nekk méngoo na ak jamono. bon euh, Joal nag euh, am na problème mu yoon quand mm-hmm. am na problème mu yoon. Euh, parce que mën nañu wax ne bu yoon boo xam ne goudron nañ ko te mu te mu jub benn yoon rek fa nekk. Mm-hmm. mooy yoon bi traversé Joal bi duggee depuis début Joal ca Ngazobil. Mm-hmm. ba fin wu Joal ca ca ca Fadiouth. Mm-hmm. dégg la naam euh, yoon bi nga xam ne dafa jógee Joal di dem Samba Diagne ji feer wax dëgg yàlla euh, gàcce ngalama mais bu dee biir Joal ci boppam benn yoon goudron boobu. Mhm. amoon na nag deuxième de de benn ñaareelu tali boo xam ne. Mhm. Euh, goudron dañ ko mais goudron dafa yàqu complètement mhm. bon. Euh, mais en tant en tant que maire yan yan nga ci def. non en tant que maire moom. Euh, amul amul amul naxante amul benn maire. bu mën jël la voirie de sa commune. li ñu def mooy. bi nit ñi di xalaat. Mhm. yàlla may nañu capacité xalaat ñu concevoir ñun suñu projet Promoville. Mhm. concevoir projet bi depuis 2017. donc mairie yu bare bare bare ñoo leen njëkk a def projet promobile mhm. projet boobu dafa jëloon les sept kilomètres muy muy deuxième route euh, deuxième route goudronnée bi. jël ñeenti tali yoo xam ne. dañu waroon a euh, euh, désenclaver quartier yi nga xam ne mooy quartier de euh, quartier d'extension. Mm-hmm. te yàlla def sax quartier yooyu dañu nekk ci ay yoonu ndox. Mm-hmm. donc ñun ci suñu ci suñu ci suñu conception. Mm-hmm. deuxième route goudronnée mais ñeent piste yooyu. piste bi ci nekk c'était des pistes qui dale am sur les contreforts ay ay conduites d'eau de pluie. depuis 2017. Ça a été accepté et tout. On nous a félicité sur la, la qualité de la conception. Mhm. waaye booba ba tey. Mhm. a ngi génn à droite et à gauche waaye suñu Promoville génnagul. Mhm. waaw loolu nag doon doon loo xam ne lu lu lu lu ma la sax. ndax euh, gëm naa ne teguñu ko fuy yoon. voilà. junj ko say kàddu ni euh, am ay jafe-jafe yoon. état bu Sénégal nag bëri na ay programme yu mu fësal ndax euh, jamono ji gis nañ tali yu bëri ñoo ngi leen di réfectionné euh, joxor bi nga ci baaraamu tuuma kii di Promoville boobu ba léegi daal euh, ba léegi defagul beneen jéego pour defaraat li ni mel. déedéet dafa dafa dafa li ñu def malgré li ñu ko apprécier ki li ñu dem nañu ba à un moment donné ñu ne lancé nañu marché bi ci lañ gëj a dégg. Mhm. léegi boo waxee ñu ne la capitale régionale yi la ñuy nga ñëwaat ñu ne la après capitale régionale yi capitale départementale yi. Mhm. waaye boo boo wëree biir dëkk bi di nga xam ni ay dëkk yoo xam ne barke demb rek la nekk mairie. Mhm. ñu ñu promovie la nga fay dox. Mhm. te ñëwul Joal Fadiouth. léegi lan teguñu ko ci benn yoon. léegi lan mooy jafe-jafe bi lan moo waral li ni mel. ah xanaa rek euh, Sénégal moo bindoo noonu. waaw comme euh, Promoville est-ce que par exemple def nga appel auprès du gouvernement pour Promoville mën a tàmbali waat liggéey bi. appel daal appel la rek. Mhm. bind nga boo demee réunion euh, euh, def appel buñ lay wax loo xam ne dañ la koy wax pour wax la mais teguñu ko ci benn yoon moom du ma ci topp rek di di wéy ak a wéyaat voilà. gis nañu état bu Sénégal bëri na ay programme yu mu fësal. en tant que. maire yow mhm. sa bi yan programme nga bénéficier wu bu jógee ci état bi. a ah, wax dëgg yàlla am naa am naa programme état nag yoo xam ne euh, programme yu am solo la parce que euh, programme bi gën a mooy programme assainissement des eaux usées mhm. te loolu vraiment programme boo xam ne euh, ëpp na sax sept milliards mhm. de coût donc programme bu rëy rëy la mhm. te wax dëgg yàlla état bi def na ko Euh, doon na programme boo xam ne euh, impact am ci euh, bien-être population yi impact bu am solo la. Mhm. te it wax dëgg yàlla bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu programme bi ba ñu koy réaliser. Mhm. suñu équipe bi am na xalaat boo xam ne da ko cee xalaat pour mu amee un côté plus structurant. Mhm. moo di eaux usées yi dañu wax ne bu ñu traité ndox mi ba ndox mi nit mën koo jëfandikoo. au ñu koy delloo ci dex bi. nañ ko yóbbu xale yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci mbéy mi. waaw ci mbéyum dër. donc loolu doon lu rafet. Mhm. c'est vrai que nag volet boobu defaguñ ko. Mhm. parce que euh, niveau purification eau bi dafa des. Mhm. mais au moins loolu moom programme bu rëy rëy la. te it euh, euh, volet structurant bi ñu ko jox noonu doon doon na daal loo xam ne séntu nañ ci daal njëriñ bu bëree bëri. waaw muy programme bi nga xam ne directeur général bu office national assainissement ba docteur Aboubacar mbay ba mu amalee tukki nemmeeku ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mais bi ñu génn ci atum eh, eh, deux mille vingt et un eh, exactement am na ko fii ci Joal. Mhm. waxtaan nañ ci bu baax a baax. Mhm. mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu te dafay mhm. fësal boobu la programme bi est-ce que jëmmal nañ ko. Euh, bo euh, xam naa ne daal. Mhm. wax dëgg yàlla DG bi mu ñëwee. Mhm. biñ ko ko biñ ko ko expliqué dem partout. wax dëgg gis naa ne euh, sensibiliser woon na bu baax a baax que amoon na détermination pour que volet boobu mu eggali ko. c'est vrai nag ñëwaguñu waaye rafet naa ci njort ko. alors ñoom lan la ñuy xaar bu ñu ñëwee comme wax programme bi kay liggéey bi lañ ko war a tàmba tàmbali ndax jot amul. ah man nag day wax de yàlla mënumaa mënumaa xam li ñuy xaar ak li ñu xaarul li ma xam daal mooy. Mhm. Euh, won naa ko li ko war won. Mhm. wax naa ko lima ko war a wax. Mhm. Euh, euh, gis naa ne réaction am réaction positive la. waaye nag ni état bi organisé woo ci yan disposition yi la nekk ci yan mënin la nekk wax dëgg dese ku wax assainissement xam naa daal am naa ci yaakaar. Uh-huh. ku wax assainissement wax inondation est-ce que Joal par mm-hmm. exemple am na ay politique d'assainissement yi nga xam ne ci wàllu canalisation bu taw bu jotee rek uh, doo am jafe-jafe ci wàllu mbënd mi. Euh, xam nga euh, programme assainissement eaux usées yi. Mm-hmm. Euh, bañ koy def équipe équipe bi ñu jiitu moo ko defoon. Mm-hmm. c'est vrai que euh, réaliser wuñ ko ci ci ci présence am mais. Mhm. moom moo ko concevoir woon mu nekkoon ñaari ñaari programme eaux usées ak ñaari projet du mot eaux usées ak eaux pluviales. Mhm. mais fekk na partenaires yi ay banque mondiale union européenne. Mhm. ne woon nañu euh, politique ku Sénégal ci gestion inondation comme leeragul. nañu jël projet eaux usées. waaye bu doon suñu sago rek. wóor na ma ne Joal Fadiouth o pluviales lay jël. Mhm. kon nag ñun ah ñu ngi séntu ñu jëlal ñu volet eaux pluviales. Mhm. waaye li nga gis li nga xam ni moom la ñu gis te mu doon solution bu bu bu bu mhm. mooy que inondation wu Joal Fadiouth. pour que mu am ab solution. pas définitive mais une solution au moins une opération efficace. il faut que ñu defal ñu canal canal fermé. Mmh. parce que euh, yàlla def na am na benn sillon boo xam ne pratiquement dafa traversé euh, euh, quartier quartier inondable yu Joal Fadiouth yëpp. Mmh. canal boobu buñ ko waxoon ba mu ba ñu tabax ko ba ndox mu ci ñëw ndoxu taw bu ci ñëw jaar ci dugg dem ci dex gi. Mhm. bu boobaa inondation dina wàññeeku bu baax a baax ci Joal Fadiouth. Mhm. lu tax mu dañ nag. mais dina wàññeeku. Mhm. li tax du deñ moo di Joal Fadiouth ci boppam surtout Joal. Mhm. moo dëkk ci foo xam ne il faut ndox mi taa parce que suuf see mel noonu. Mhm. waaw parce que buñ ne euh, boo jëlee téeméeri xaaj juróom-benn fukki yëpp. ci dëkk ci dëkkuwaayu Joal Fadiouth dëkk buy taa ndox la. mënoo wax ne mën nga réglé inondation ci ci diir bu gaaw waaye am na ay solution xam ne dinañ ko wàññi. ba ndox bi dootu fi taa parce que li ci des moom même bu tawee nii. Mhm. Euh, ndox mi day daal di daw rek dugg ci canal bi dal di dal di dem def su ko defee. Mhm. dootuñu am mbënd comme niñ koy jooytoo. Mhm. mais mais yàlla def na ah yàlla def ren par exemple wax dëgg yàlla amuñu problème bu mbënd. parce que euh, euh, kii euh, euh, surtout au niveau de ki yore gestion inondation yi. Mm-hmm. envoyé woon nañu benn entrepreneur ba mu mu wàq kanaal bi. Mm-hmm. Euh, ni mu ko wàq noonu nag tax na ba euh, saa yu tawee rek. Mm-hmm. Euh, ndox mi dafay daal di dem waaye ñun tam au niveau de la mairie. def nañu pose ay bus yoo xam ne dañu tax ba écoulement wu ndox mi tam gën a gën yomb. loolu daal xam naa ne ak tam ci benn quartier boo xam ne ay ndaw ñoo jël initiative. Mm-hmm. ne dañu bëgg impliqué wu ci ci ci ci mbëndu seen quartier. Mm-hmm. mairie dal di leen accompagner jox leen tous les moyens accompagner leen euh, tax nañu ba ni ñu doon jooytoo. Mm-hmm. Euh, mbënd mi ci quartier bu ñuy wax Ngolna. vraiment yàlla tax na ba ren ndox mi su ñëwee rek dafay dal di jaar ci canalisation yi nga xam ne moom la ñu wàq. dal di dem euh, ci dex gi. Mhm. est-ce que ce qui fait ren ji daal alhamdulilah euh, taxul ñu jooytu ndox. Euh, est-ce que par exemple daal waroon na am jafe-jafe ci wàllu assainissement ak canalisation dans la mesure où gis nañu géej gi ak dex gi nu mu ko waree bu ñu waxi woon mbedd yi muy bu tawee rek mu jubali sa kii ca géej gi wala sax ca dex yi. waaw mais xam nga loolu tam dafay euh, am na quartier yoo xam ne seen niveau. Mhm. moo gën a wàcc niveau niveau géej gi ak niveau ndox mi. Mhm. ak ak niveau dex bi. Mhm. tax na ba euh, même suy taw nii. bu fekkente ne euh, dafa am marée haute. gis ne ndoxu taw bi day dal di des ci biir kër gi. ci biir ci biir ci biir dëkk bi. mais su géej gi feree rek. nga dal di gis ndox moomu dal di daw euh, dem ci dex géej gi. Hmm. donc affaire niveau kii la. Hmm. Euh, géej gaa ngi fi dex gaa ngi fi euh, gas mu dem non non loolu du solution. Hmm. solution Joal daal canalisation la bien maîtrisée ñu envoyé ko avec des niveaux bien calculés mu dal di daw dugg ci géej gi wala dugg ci ndox mi. waaye wax nii rek. de manière artisanale. da ngay tax géej gi ak ak dex gi indi ndox mi au contraire ci biir dëkk bi mhm. waaw mhm. gis nañ uh, beneen jafe-jafe bi nga xam ne population ba yeewoot Joal uh, Fadiouth dañ koy jànkoonteel mooy wàllu environnement muy alam gi alors yooyu mhm. yan pexe nga ci defagul pour indi ci saafara waaw loolu moom lu ñu sonal la euh, loolu nag euh, dafa dafa laaj nit ñi ànd ci ak ak xel xam nga euh, dëkk dafa am dëkkin am Euh, Joal Fadiouth mhm. dafa nekk commune boo xam ne euh, ñu ngi ko dagg depuis mille neuf cent soixante six mhm. boobu ak tey juróom fukki at la ak juróom mhm. ñu koy dagg séntu woon ne askan bi dina toll nii en cinquante cinq ans parce que bañ koy dagg boobu population yi juróom benn junniy nit la fi mu nekk nii nekk na juróom fukk ak juróom benn junni ci ay doomu aadama mhm. biñ koy dagg yaakaaruñu woon ne euh, population yi dina dina dina dina bare nii ba pare ne dina xate nii mhm. ce qui fait que Joal Fadiouth surtout Joal dafay nekk dëkk boo xam ne dëkk bu xat la benn mhm. dafa nekk dëkk boo xam ne ndox bi dafay taa loolu tam dafay joué ci ordure mhm. dafa nekk dëkk boo xam ne euh, euh, industrialisation bi peut-être su demewul noonu aussi fam mhm. fam fa mu féete dafa dafa xat mhm. muy déchet plastique yu bari muy tam euh, monde pêcheur ak ak ak transformation ak commerce muy activité yoo xam ne c'est des activités yuy produire ay ay ay déchets yu bëree bëri. Mm-hmm. dëkk yu mel noonu nag boo ko bëggee comparé dëkk boo xam ne boo gisee kër fii gis kër fale te amuñu benn kii da ngay dal di jëm ci appréciation yi. Mm yàlla dafa def nag wax dëgg yàlla ñun si bi ñu ñëwee. Mm fekk nañu mu amoon fi benn projet boo xam ne projet bu ñu amoon yaakaar la. ci projet gestion des déchets. Euh, amoon na projet gestion intégrée des déchets. Mhm. am projet gestion améliorée des déchets. muy doon ay projet yu baax yu am ay approche yu baax yu fi installé woon ay comité de salubrité ci quartier yëpp tàggat nit ñi ba nit ñi euh, commencé sax di def ay ay ay ay maîtriser ci ay tri mhm. mais malheureusement bi ñu demee bi fi nga xam ne fa la ñu waroon a euh, teg Euh, usines yi nga xam ne ñooy transformer déchets yi. Mhm. alors foofu nag la la la xaalisu projet bi jeexee te euh, installation yooyu euh, marché wuñu mhm. ce qui fait que ñun dañuy yegg si fekk juste période boobu. Mhm. Ah, ba mu ko defee nag non seulement ñu ci retombées yi. mais comme euh, euh, partenariat laa woon mairie dafa amoon ay engagements financiers yu mu war a honorer. ñun nag dañu tombe ci honorer engagement yooyu mais jotuñu ci retombé yi. Mhm. loolu doon na gàllankoor boo xam ne ku ko xamul da ngay naan Joal dafa tilim Joal dafa nii Joal dafa nii mais Joal dafa amul lu mu maîtriser enlèvement ordures yi. Mhm. kon daal maanaam da ngeen am jafe-jafe ci wàllu koppar ngir jëlee fi mel. dañoo am euh, jafe-jafe ci wàllu koppar pour jëlee ordures yi ak niñ ko fa war a Euh, euh, logistique bañ foog ko fooree jëlee. Uh-huh. te it nag foofu tamit état bi dimbalewuñu mm-hmm. ndax dëkk yu bari da leen di romb. Mm-hmm. gis ñu am ay agent wu FERA yi UCG mais ñun laaj nañu loolu kenn faalewuñu mm-hmm. pourtant yelloo nañ ko. bu amoon. boole ak action citoyenne parce que nag mbalit mi bari na. parce que mënuñu am tout de suite logistique par exemple ay camions yu koy génneeg yooyu mënuñ ko fi am te xam nga. Mhm. bu dee ay saretu mbaam yooyu. Mhm. dafay dafay mënu mënu ko amul amul kattanam. ana waa léegi ana budget maire bi. ah kon yow xamoo budget maire yi. damay laaj rek. waaw amul benn budget maire yi. Mhm. Sénégal yëpp amul benn budget maire yi bu mën a gérer ay ordure au niveau des des maires yi loolu moo tax. programme yi ñuy def yëpp dafay doon ay programme yoo xam ni. ay intercommun ay ay ay ay intercommunalité lañ ciy def. Mhm. mais bu dee ab ab mairie kese kese kese kese. Euh, par exemple ana fonds yi ngeen di bénéficier wu mais xam nga mairie dañuy bénéficier wu ay fonds de dotation koppar yooyu ngeen di bénéficier wu <laughs> <laughs> yooyu moom. Mhm. yooyu moom vraiment bu ci gën xam nga ñëpp ñëpp dañ la man. Euh, euh, Mm-hmm. bëgguma toujours di di wàcce ci ci ci yeneen nit wala ci yeneen structure mm-hmm. waaye li la ñëpp di wéy mooy mm-hmm. les compétences sont transférées sans les moyens moom la ñëpp di wax ku maire xam ne démembrement état la waaw waaw ah, par exemple mairie bi dafa war di lëngoo ak état bi pour mën a pour mën a jëmmal ay projet comme ni nga ci wàllu environnement bi xam ni waaw ci la ñu nekk moo tax ñu ngi ci projet Promogène. Mhm. dama la dee amul amul benn mairie isolément. Mhm. bu mën a gérer say ordures. Mhm. loolu moo tax tey les gens l'ont compris ba c'est des projets de l'État et ça se passe dans l'intercommunalité. ñun nag comme am nañ ci expérience bi am nañ ci tam ay ay infrastructures donte egguñu fa nga xam ni foofu la ñu mënoon a am une autonomie de gestion. ñun am nañu ay infrastructure yoo xam ne dina tax ñun ñu bokk ci projet bi un projet de l'état mhm. donc c'est la seule bu ñu ci mën a génne. yéen a ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM 97.5 di dalal Boucar Diouf di maire bu commune bu Joal Fadiouth ba tey dañuy des mhm. ci waxtaan bi est-ce que am nga ay programme yi nga xam ne am nga xemmemteefu jëmmal ko boobu ba léegi te état bu Sénégal jàppalewula si la euh, ci. waaw pro euh, Promoville de xam ngeen ne moom moom vraiment. projet la boo xam ne man maa ngi koy séntu ci état bi ak nu mu ak saa yu mënee ñëw rek. Mhm. xam naa projet bu bu mucc ayib la. Mhm. wax dëgg yàlla bon euh, loolu daal xam na nit ci di gën a am solo maintenant am na projet yoo xam ne euh, parce que ñun dañu bokk ci Pakistan. Mhm. donc loolu tax na ba bu nekkee ci santé bu nekkee ci jeunesse bu nekkee ci sport. am na yoo xam ne dañ dañ planifier am na ñu projet yoo xam ne dina. dina dina jëmal dëkk bi. Mhm. te dina jëriñ askan wi. Mhm. waaw mais projet état bi nga xam ne vraiment moom la ñuy séntu moom. Mhm. ñaari projet yu baax a baax te ñu koy séntu ci état bi actuellement. mooy projet gestion des eaux pluviales. ak Promoville. waaw parce que li ci des moom euh, je pense que euh, war war nañu mën a dem au rythme du pays. Euh, commune bu Joal Fadiouth lan mooy activité économique bi gis nañ napp bi am na fa. Euh, dooleel. waaw waaw napp gi napp gi mooy mooy activité principale. Mhm. te ab dëkk buñ la nee sa activité principale mooy napp gi mooy yaa ngi ci jafe-jafe. Mhm. yan jafe-jafe par exemple. ah napp gi fu mu toll ci Sénégal. Mhm. est-ce que nappkat yi moyens yi ñu amoon ah, euh, euh, il y a dix ans ñu ngi koy am ba léegi. ñëpp xam nañ ne napp ci Sénégal léegi dafa dafa dafa donc dëkk boo xam ne napp moo nekkoon euh, sa principale ressource. Mhm. yaa ngi am ay jafe-jafe. Mhm. donc euh, Joal-Fadiouth comme dëkk yëpp nga xam ne napp gi moo nekkoon seen principale ressource. Mhm. am na ay jafe-jafe. Euh, koom-koom bi nu mu tolloon tollootuñu yëngatu bi nit ñi mënoon a yëngatu mënatuñ ne yëngatu. donc dafa am un réel problème euh, social et économique. ñoom sax dañuy faral di joyti ni euh, bato yu jógee tugal da leen sonal lool ndax euh, ñoom wàllu napp traditionnel bi lañuy def te ñee dañoo méngoo ak euh, jamono xam nga Joal mooy premier port de pêche artisanal mm-hmm. donc lépp loo xam ne dafay galankoor napp rek mm-hmm. ñun dañ koy dal di yëg de mm-hmm. manière très très directe am na nag ay ay ay dossiers yoo xam ne dossiers yoo xam ne dañ ñëpp koy yëngal ñëpp xam nañu problème mu dina ñu wax ay euh, problème mu euh, ay bateau étranger mm-hmm. bon lépp loo xam ne nappkat yaa ngi koy joytu laal Joal Fadiouth a ngi koy joytu mm-hmm. te nag yàlla def na wax ne yàlla muy suñu port muy suñu CLPA mm-hmm. ñu ko jiite ay ay xelel yu am expérience lañu ay xelel yu am xel lañu ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ne dañuy porter euh, les doléances des pêcheurs Euh, mhm. te gis nañ jafe-jafe ci wàllu napp gi waaye euh, mhm. maire yi gis nañ maire yi nekk fii si réewum Sénégal dañuy jëf am ay gàllankoor ngir am ay koppar par exemple yow sa commune yow fan ngay tirer say ressources euh, xam nga ressource maire yi mhm. c'est essentiellement les taxes taxes yi nag mooy par exemple euh, bu dee bu dee gare routière transport bi euh, les taxis clando les les les transports d'une manière générale bu dee commerce boutique yi waaye bu fekkente ne pêche la c'est essentiellement mooy euh, kii transformation yi parce que xam nga napp newul nekkul compétence transférée mhm. donc amul Euh, un apport financier direct ak ak mairie yi. Mm-hmm. waaye bu fekkente ne jën yi am na. Mm-hmm. Euh, commerce bi dafay dal di dox. Mm-hmm. transport bi dal di dox. même hôtellerie bi dans une certaine mesure dafay dox. mais surtout transformation bi. ñii di jënd jënd dem ci site de transformation yi. fuur yooyu dañuy fay. donc su jën amee rek activité day am rente dafay am. mais oui. ndax napp gi moom mooy euh, principale activité économique. napp gi mooy napp gi mooy commandé dund Joal Fadiouth. Mm-hmm. c' est vrai nag ñi nga xam ne Joal Fadiouth la ñuy cosaanoo. Mm-hmm. ñoom yéex nañoo dugg ci napp gi. Mm-hmm. ñoom mbéy la xam ak élevage. mal malgré li ñu nekk ay nitu ndox mbéy la ñu xam ak élevage. waaye nag napp gi. moo tax gan yu bari ñëw fixé wu ci Joal Fadiouth napp gi mooy rythme euh, capacité euh, pouvoir d'achat bu Joal Fadiouth. Mhm. est-ce que par exemple yaa ngi leen di gunge ci wàllu politique ak ay jumtukaay ci ay bërëb yi nga xam ni méngoo na ak jamono ngir euh, koom-koom gi gën a mën a yokk. Euh, dégguma. ma ne est-ce par exemple yaa ngi leen a gunge ci wàllu jumtukaay seen bërëb yi ñuy liggéeyee pour moo mën a méngoo ak jamono ngir koom-koom bi mën a yokk ndax dans la mesure où ji ñu nga say kàddu nga ni mooy activité activité économique principale bu Joal Fadiouth waaw xam nga lépp loo xam ne par exemple euh, niveau réflexion la mhm. mu war a nekk au niveau national war a au niveau régional mhm. damay méngoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo jiiteel kuréelu pêche yi pour la réflexion parce que lépp nag foofu foofu foofu lay jógee mhm. donc damay méngoog ñoom déggoog ñoom ba ñu am toujours la même position ba bu ñuy défendre ay idées mu doon ay idées yoo xam ne dafay dafay méngoo mhm. bon ñoom it ci ci seen bëgg-bëgg bu fekkente ne soxla nañu ay arrêté pour gën organiser tel ou tel partie foofu tam dama leen di accompagner par des arrêtés euh, municipaux mhm. bon bi ñu demee ci ay affaire u euh, euh, subvention wu moteur yeeg yooyu mhm. là également ci échange yi ci contact yi nekkoon nañu facilitateur mhm. mais euh, wax dëgg yàlla fii suñu pêcheurs yi ils ont bénéficié de beaucoup de de de subventions de moteur mhm. bu amee aussi ay ay ay conflits entre des pêcheurs entre des pêcheurs et d'autres personnes comme des mareyeurs et autres foofu tam dañuy intervenir pour installer un climat social apaisé mmh. parce que loolu tam dafa nekk euh, un investissement important pour que nit ñi mën a liggéey fu amul jàmm kenn mënu faa liggéey mhm. donc loolu mooy mooy accompagnement bi mais nekkul loo xam ne par exemple mairie day génnee copar pour telle ou telle chose. Mm -hmm. euh, c'est pas le rôle de la mairie. Mhm. Euh, la mairie a un rôle d'accompagnement, un rôle d'administration, parce que ñi fa nekk yëpp muy nappkat muy transformateur muy mareyeur mm-hmm. képp ku fa nekk rek administré wu commune bi nga. Mm-hmm. rawatina nag bu fekkente ne da ngay liggéey liggéey boo xam ne mooy dundal commune bi le rôle de la mairie mooy mu accompagner la ci lépp. ci wàllu quai de bi nag est-ce que par exemple méngoo na ak jamono. ndax gis nañ ni nappkat yi bëri seen quai de yi dafay xaw a xaye di lool. waaw quai de pêche bi peut am na ay jafe-jafe d'ailleurs foofu il est important que ñun ñun ñu ko xam nga. Mhm. Euh, quai de bi moo ko moo ko def. Mhm. léegi état bi su defee quai de bi da koy da koy da koy jox mairie en concession mais à condition que mairie def sous concession ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci quai de pêche bi muy les syndicats interprofessionnels. Mhm. léegi euh, quai de pêche boobu bu gérer. ba def toutes les dépenses dafay am quarante pour cent boo xam ne dafay dellu si ci ci ci mairie bi mais en réalité euh, loolu mënatul am depuis ay années parce que quand même euh, seen i jafe-jafe rek doy doy na leen waxatuma ñuy meññ ay quarante pour cent yuy ñëw ku ko xamul nag da nga yaakaar ne fépp fu am quai de pêche rek dafay dal di am mairie bi naat mais quai de yi ci seen bopp ñoo am ay jafe-jafe parce que pêche bi ci boppam moo am ay jafe-jafe waaye li nga xam ne moo am solo mooy quai de yu bari réeroo nañu ak seeni mairie mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla quai de pêche Joal Fadiouth mm-hmm. ak mairie Joal Fadiouth ak CLPA ak inspection régionale des pêches parce que inspection régionale des pêches de Thiès fii Joal Fadiouth la nekk mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, ànd bu rafet la ñu ànd di méngoo ci suñu point de vue di échanger Euh, ku ci nekk di wax sa morom li ngay xalaat ñu stabiliser euh, suñu forme d' intervention. Mhm. donc à ce niveau là wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, dama leen di jaajëfal di ñaan rek suñu borom delloo si teraanga pour nappkat yi mën a dundee seen activité principale. Mhm. ku wax napp parce que su amee rek Joal dal di naat. ku wax napp wax jën est-ce que soxna yi fay yëngu ci wàllu jën bi seen marché bi xaw na méngoo ak jamono. ah bon méngoog jamono moom xam nga bu dee jamono jafe-jafe la. Mhm. bu jafee méngoo ak jamono. <laughs> ba xam est-ce que par exemple ah. marché yi ngi kii norme yi ma gis nañ marché yi bëri daanaka seen day am problème mu fissure dafay xaw a xar ña fay nekk di ji ji fa jaay daanaka duñ nekk ci sécurité. non non non ñu amu amuñu amuñu problème yooyu quand amuñu problème mu insécurité wala problème mu fi ñuy jaayee jën ak yooyu am ay jafe-jafe non non non. Mhm. waaw vraiment. jën yi daal. Mm-hmm. liñ ci mën a joytu. Mm-hmm. mooy euh, ni mu ni ñàkk. Mm-hmm. waaye jën yi su amee. boo demee quai de façon jën boo soxla. di nga ko jotee ca na mu gën a rafetee. dëgg la nag euh, quai de pêche bi toiture bi yàqu woon na. ci ci daaw bi. mais kooku kooku quand même euh, signalé nañ ko. ba am na déjà loo xam ne wóor nañu ne ça va être repris euh, sur ce plan là nekkul problème mm-hmm. waaw mm-hmm. mais foofu moom li ñuy joytu daal mooy ñàkk jën mm-hmm. waaye nekkin bu jafe daal du loolu jën yi daal su ñëwee ñun ñun ñu ngi ci jàmm ku wax Joal Fadiouth wax ci wàllu tourisme wàllu tourisme mm -hmm. impact la def euh, ci foofee non tourisme boobu dafa daanu lu waral li ni mel ah Sénégal la tourisme bi daanu ci boppam. Mhm. mais forme tourisme yi aussi dafa changé. Mhm. xam nga tourisme hôtelier ñëpp xam nañu ne euh, nekkul loo xam ne tey fi mu nekk euh, mu ngi ci naataange. Mhm. donc li am mooy au niveau de Joal réceptacle hôtelier yi d' abord mosu mosut a bari. dafa Joal Fadiouth nekk euh, ab dëkk boo xam ne. même temps bi tourisme di dox touristes yi daanaka dañuy dugg rek dënn mhm. waaw mhm. parce que euh, euh, généralement euh, les les les les grands tours lay nekk mhm. digante Saly ak Joal fanweeru kilomètres la kon dañuy dugg seen bus ñëw visiter Joal visiter Mbine Diogoy dem visiter Fadiouth visiter cimetière yu Fadiouth dellu si ñibbi. Donc le tourisme n'est pas favorable à Joal Fadiouth. Mm -hmm. à cause de la proximité de sali mm-hmm. ak façon bi ñuy bi touristes yi di ñëwee fii ci Sénégal. Mm-hmm. rawatina nag léegi nga xam ne bon euh, loolu yëpp grand voyage yooyu amatul. Mm-hmm. donc hôtel yi fi nekk mënu mënuñoo bari ay nit. ce qui fait que mënu mënuloo wax tey ne tourisme bi doon na lu mën a dundal ñi ciy yëngatu. boo leen di xool xam ne bareetuñu ay ay ay kii ay ay hôte mhm. bareetuñu ay activité euh, vraiment wàcc na daal mais seen lieux yi nag lieux yi par exemple sites yi ñu war a visiter waaw sites yi sites yi ñu war a visiter moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci réflexion malheureusement mhm. euh, covid bi moo gën moo gën a yàq nag parce que quand même demoon nañu ak euh, syndicat des guides touristiques mhm. ba di concevoir beneen itinéraire boo xam ne dañ dañ ko bëgg a def ba touriste bi bu ñëwee dootul def trois quarts de rek génn. Mhm. mais dañuy multiplier le nombre de sites de telle sorte que bu touristes yi ñëwatee. Mhm. dinañ mën a def peut-être pendant une journée. Mhm. boo nekkee ci dëkk pendant une journée di découvrir ça et là. la nga fay bay dafay dafay dafay yokku. malheureusement bi ñu demee ba ci réflexion boobu ci la ci la Covid bi ñëw. mu doon loo xam ne daanaka dañ ko teg ci suuf mais quand on a un syndicat des touristes très très jeune et très mhm. dynamique mhm. te am naa yaakaar ne bu jàmm ji dellu si ba euh, affaire feebar bi jeex mhm. dinañu mën a jëlaat euh, kii boobu euh, defaraat mbin jógoy ba mu nekk foo xam ne nit ñi dinañ fa mën a toog lu gën a yàgg seet après à part mbin jógoy lan lañu ñu mën a seet ci biir dëkk bi ak ci li wër dëkk bi ba touristes yi bu ñu ñëwee gën fe yàgg buñ fi gënee yàgg xëy na liñ liñ fiy bàyyi ci koppar gën a gën bari waaye fi mu nekk nii moom tourisme bi forme bi nekk nii du forme favorable à la commune de Joal-Fadiouth. Mhm. muy ñu def sax transition waxtaanee ci waa Léopold Sédar Senghor. muy seen mhm. même maanaam ngeen déplacé fi ñu ko dencoon après indi ko fële ca Joal léegi seen mhm. bëgg-bëgg boobu fan ngeen si toll. Euh, loolu de jàpp jàpp nañ ko xam naa ne nag. Mhm. Euh, waxe ko gën a luma mais comme occasion la. Mhm. parce que dama préféré woon. Mhm. Euh, waxtaan ceeg waa dëkk bi expliqué gi yëpp. waaye xëy na lii mën doon ab départ rek. li ma li nga xam ne moo moo newoon sama yéene. mooy comme ñu ngi ko doon waxee. Euh, te xëy na officiellement ñëpp yëgaguñ ko. mais may jégalu waa dëkk bi dama leen war a expliquer bu baax a baax ne euh, affaire u euh, delloo cercueil yu Léopold Sédar Senghor ak soxnaam ak seen doom Philippe mhm. euh, yàlla def na doon na loo xam ne fas yéene nañ ko def le 19 décembre 2021 mhm. te loolu Léopold Sédar Senghor ci boppam mhm. moo bind ci loxoom ñaan ko def ko ci ay poème yoo xam ne wër na àddina bépp di wax ne suma yàlla moomee denc leen ma Joal Fadiouth. Mhm, maanaam ñu déplacé famille waaw waaw déplacé famille bi moom si boppam ci dundam. Mhm. dem na ba def seen caveau. Mhm. kon nag dafa di loo xam ne ah moom moo ko ñaanoon. ñi nga xam ne moom la ko ñaanoon. jàpp ne li ñu xam mooy su doomu aadama di dund ànd ak sagoom ne la bu ma yàlla moomee defal ma lii mhm. su ko yàlla moomee yow mi mu ko waxoon mhm. balaa ngay nelaw nga defal ko lim la ñaanoon mhm. moo tax ba euh, incha allah le 19 décembre cercueil yu Léopold Sédar Senghor ak cercueil yu soxnaam Colette ak cercueil yu seen doom Philippe ci kattanu suñu borom fas yéene nañ le jële beleer indi leen fii ci armeel catholique yu Joal mhm. mënuma cee sori nag parce que da cee war waxtaan ak askan wi mhm. mais comme dañ koy doog a euh, leeral nii ci semaine bii rek euh, te yow nga ooma tey moo tax ma rëcc la lii mhm. ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñun recevoir foog ma toog wax ak askan wi expliqué leen Mm-hmm. be ñun ñëpp ñu jël suñu matuwaay ba bés boobu ñu def ko bés bu rëy mm-hmm. ndaxte nag yàlla def na mm-hmm. le premier président de la république du Sénégal yàlla def na Léopold sodor Senghor la di doomu Joal ñaan ñëw Joal présence su président de la république ak famille am ci armel dafay yokk euh, darajaay armel boobu donc euh, dafay nekk loo xam ni ñun ñëpp dañ ci war a jël conscience. Mhm. Euh, ànd ci niñ koy defee pour mu mucc ayib. Mhm. Mhm. addu ci leneen li nga xam ne dafa lëmbee fële ca Joal Fadiouth muy coow ci wàllu suuf gis nañ euh, collectif des quartiers traditionnels dafa annoncé woon sax benn plainte ci sa ndodd ñu lay ñi la si joxar bi baaraamu tuuma ni dangay ngay da ngay maanaam da ngay jël suuf yi di leen Euh, morcelé par exemple yan tontu nga mën a indi si loolu. Euh, d'abord man dama ne woon. Mhm. Euh, duma ci wax. Mhm. bu doon ñoom ñoo bu doon ñoom ñoo ma wax du ma du ma tontu mais comme yow yaa ma laaj. Mhm. dinaa dinaa tontu. dafa di doomu aadama da ngay nangu dëgg rek te yàlla tax. ñëpp xam nañu ne fii suuf ci Joal Fadiouth mhm. problème bu rëy rëy la mhm. commune bi dafa jeexal suufam mhm. li des mooy euh, plan lotissement yi nga xam ne jotoon na fee am jaar yoon ak lépp am na ñoo xam ne seen suuf dafa nekkoon ci biir plan lotissement yooyu te ñu lànk ne ñoom kenn du kenn kenn ci boole seen seen seen tool Mhm. kon ñun suñu ñëwee ñu d'accord ne léegi nangu nañu ngeen boole ci suñu tool mhm. nekkul plan lotissement booy dox mhm. loolu rattachement la parce que euh, espace boobu plan lotissement am def na toutes les démarches léegi yooyu yooyu suuf yàlla xam na ne mënuloo sax xalaat ne dangay jox ay nit ñu bis parce que da nga fay fekk ay nit ñoo xam ne dañoo fayoon seen frais de bornage. Mhm. du ma wax lim bi parce que suma ko waxee nit du ko mën a gëm waaye c'est euh, ay ay kayit la yoo xam ne ci passation service ci ci ci la nekk xam nga. Mhm. Euh, doo doo dem di wax li nekk ci passation de service waaye nit ku nekk li nga li nga li nga fekk fi nga fi nga fi nga fi nga fi la fal da ci ciy ànd ak ngor ànd ceeg sutura def li nga mën ci solution. te doo fi nekk di tuumal nit wala jafe-jafe am nga naan du man kay lag yooyu man loolu du suma jikko mm-hmm. donc suuf soosu ñoom nee nañu euh, jaarul yoon mm-hmm. man su may suma ma su ma su ma waxee nit mm-hmm. su may xuloog nit ba mu ne ma bàyyi naa la ak yàlla dootuma wax parce que yàlla la ma bàyyil may wax nit ba mu ne ma dama lay yóbbu ci yoon dootuma wax ak mhm. yoon wi. Mhm. waaye passé naa fu may def ay luubal. Mhm. solution la euh, euh, situation laa fi fekk di ko utal solution te jalgati wu ma yoon. léegi lu tax par exemple ñoom ñu la ciy joxar bi baaraamu tuuma. ñii. par exemple ñu la ciy jam baaraamu tuuma. waaw loolu la rek. loolu la rek xam nga xam nga dañuy wax dañuy wax li ñuy wax politique ak peut aussi nit su fekkente ne àndutoon ak yow démb. Mhm. dafay jonkon rek lu mu yaakaar ne mën na la fa euh, mën na la faa tuumaal mu kii ko waaye nag wax de yàlla du ñëpp ma tuumaal. Mhm. c'est que nag aussi léeg-léeg nga gis ab groupe. Mhm. ah xëy na mu am ay intention dem indi tele yi indi rajo yi dal di wax wax wax wax mais fii Sénégal. ñiy noppeeg seen dëgg. ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne dañuy takki micro ki rajo di yuuxu man nag loolu di sama méthode maa ngi liggéey suñu borom rek laa ci seen tur payam addu ci wàllu élection locale yi ci weeru janvier atum deux mille vingt deux daanaka li ci mhm. euh, bariwul ñu fare ci kujje gi ak ñu fare ci gouvernement bi ñu ngi nas ay pexe ngir toogaat seen bopp localité Euh, mhm. Boucar Diouf nekk maire bu Joal Fadiouth est-ce que da ngay daganaat euh, baatu askan wi euh, man nag dafa am nu ma nu yàlla bindee mhm. dañu ne depuis deux mille seize ba ko borom réew mi waxee mhm. ne maire yi nga xam ne dañu bokk ci mouvance présidentielle donc nekk ci grande majorité présidentielle dëkk bu nekk ñoom ñoo nekk coordinateur u Benno Bokk Yaakaar mhm. donc ma jël ne loolu mooy sama sas mhm. ma coordonné depuis référendum mhm. coordonné ci législative coordonné ci parrainage coordonné ci présidentiel yàlla bi dara teewul jox ñu résultat yu baax en faveur du président de la république son excellence Macky Sall ñuy jublu ci local yi mhm. mu ñaan ne li ko gënaloon mooy fépp fu Benno Bokk Yaakaar nekk nañu waxtaan bi am une candidature consensuelle mhm. man ma nekk coordonnateur yu Benno Bokk Yaakaar mhm. ma dal di jàpp ne mission biñ ma jox mooy ma manager pour ñu am une candidature consensuelle de Benno Bokk Yaakaar loolu nag moo tax ba du ma mës jox sama bopp sañ-sañ ne isolément de bokkuma ci groupe bi jiitaluma leen jiitaluma kenn ndax toog sama sama sama sama ron koko ci mhm. di wax ne man candidat la wala euh, nekkuma candidat mhm. li li nga xam ne daal moo ma tey nelew mhm. te moom laa jàpp mu doon sama mission te balaa maa am jàmm ma def mission boobu ba mu egg mooy mouvement ak parti benn bokk bokk yaakaar yëpp. Mhm. ma ànd sama tey ànd sama respect di leen o di leen déglu ñuy wax di wax di nos di nocci ba ba ñuy wax ne kii mooy suñu candidat. Mhm. loolu su amee rek ma am sañ-sañ buñ nee nii ma ne man la. Mhm. wala kali la. waaye man candidat benn bokk yaakaar mooy sama mission. yow yow maire sortant nga kon par exemple da ngay xaar ndogalu base bi pour nga mën a wax ni candidat nga waaw man moom base rek uh-huh. man moom mosuma la ñaanal suma bopp dara uh-huh. waaw uh-huh. mais gis nañ ni par exemple ci coalition Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xamante ne xaaruñ sax njiital réew mi jël dogal ñoom dañoo ñëw rek fësal seeni ambition politique waaw xam nga loolu euh, boo boo séentoo bari na fu mu am kon du ñu ne Joal Fadiouth rek waaye nit ku nekk ak ni la yàlla bindee déggoo ma ne bu njëkk dafa am nu ma yàlla bindee mhm. man discipline d'équipe laay doxale yàlla def na it euh, li ëpp ci sama àddina ci ay ay ay groupe laay évoluer muy ay équipe euh, ay équipe sport di ay association sportive et culturelle euh, di ay syndicat man liggéeyu groupe ci la ci laa jekkali sama yar mhm. tax na ba Euh, xëy na yàlla may na ma capacité ma manager euh, andi ci ak tey andi ci ak yar yàlla di ma may euh, sutura. Mhm. loolu moo tax be dina jafe nit waxloo ma en dehors du groupe. Mhm. waaw. querelle de positionnement yi ñu nemmeeku au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina Joal Fadiouth. ngeen bokk mhm. même coalition ba pare ngeen bokk même ambition. rawatina mhm. kii di Sophie Gladima di ministre di pétrole ak wàllu énergie moom dafa bëgg sa toogu bi mhm. loolu day am na ci droit wax day mhm. yàgg na koo wut sax mais da cee am droit bu baax yelloo ko tam comme ñëpp donc foofu awma ci benn état d'âme muy moom muy muy moom muy keneen damay wax toujours te mu doon nag li ma gëm Euh, fauteuil yu maire Joal Fadiouth bi mhm. yal na ko suñu borom jox ki ci Joal Fadiouth ak ki nga xam ne tam da koy jëkk mhm. man noonu laa ci gisuma lenn lu may dawloo bay fakkastalu moo de de yéen a bokk ko même coalition bi de loolu est-ce que doo am euh. jeexintal bon man daal xam naa ne euh, capitaine euh, euh, borom gaal gi daal bu leen bu leen nee defe leen nii tooge leen fii mhm. man loolu laay déglu mhm. man loolu laay déglu mhm. su keneen gisee neneen defe neneen sañ na ko man sama position dama ko respecté mais dama respecté tam position wu ñeneen ñi ku ci nekk daal jël nga say responsabilité man day déglu liñ ba dektal mooy sama gis-gis moom laay def. Mhm. léegi keneen su defee dem ko neexee. Mhm. aw ma lenn lu ma ci lu ma ciy jugé. Mhm. waaw eh, ci élection locale yi par exemple njiital réew mi bu tànnee keneen ku yow dangay ngay ne si ginnaawam jàppale ko wala. waaw man aw ma problème mu eh, njiit ak kile na jaar yoon rek. na jaar yoon rek. man daal buñ ne eh, fexe leen ba woon ma kenn mhm. dinaa bokk ci ànd bi dinaa bokk ci pexe bi dinaa bokk ci wone kenn ki mhm. léegi nag ki nga xam ne moom la yàlla may muy tànn mhm. bu tànnee jaarale ko ci yoon amul benn problème bu jaarul yoon nag maa moom sama bopp gis nañ yéen a ngi organiser ay daje ca Joal Fadiouth ay rencontre di def ay réunion lan mooy sabab euh, boobile réunion maanaam xem euh, objectif bi lan moo lan mooy lan lañ mën a jàpp ci rencontre yooyu ngeen def non kii bi kii bi mooy mooy mooy kii bi rek mooy mission bi ñu sant mm-hmm. euh, haute candidature consensuelle mm-hmm. ay dizaine dizaine réunion la ay dizaine dizaine waxtu yoo xam ne da ngay déglu nit ñi di weccante xalaat di nos di nocci ba ba ngeen di d'accord ci lenn mhm. loolu rek la mhm. du leneen mhm. te nag man de bi ma ci jiital amul benn baat bu ñagas amul kenn ku ci wax kenn loo xam ne ñaaw na ci nopp dëgg-dëgg ma ci sant nag aussi tous les partis et mouvements yi nga xam ne dañuy ñëw ci réunion Benno Bokk Yaakaar majorité euh, présidentielle ma leen ci sant bu baax ci sag boobu ñu ma may mhm. waaw sag boobu moo tax ba sañu ma wax lenn loo xam ne euh, du ci seen kii ci seen euh, coobare mhm. waaw gis nañ coalition yu juddu bëri na ci kujje gi coalition Yewwi Askan Wi ak beneen coalition bu Bougane Gueye Dany ak coalition bu PDS taxawal est-ce que dina yomb ca Joal ngeen mën a janoo ak yooyu la coalition waaw xam nga xam nga d'abord euh, il faut ñu reconnaître ne dafa am évolution ci euh, réalité politique bu Sénégal bu njëkk da ngay wax parti am partie yu bari yoo xam ne wóor na leen ne bu ñu jógee tam ak lépp lu mënte am ñoom am nañu doole ak organisation boo xam ne mën nañ ci génn waaye fi mu ne nii Sénégal amul kenn kuy wax amul benn partie tey bu mën a fëgg dënam ne suma ma utee man rek dinaa ko am donc c'est l'ère des coalitions donc c'est normal que bu amee euh, coalition ou parti au pouvoir mu am coalition opposition que nit ñi suñu demee ba xam ne coalition bi ñëpp mënuñ ci bokk ah bu ñu amee coalition formule B formule A à côté ñu am coalition formule B donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne vraiment nit ñi dañ ci war a ànd ak sago ak yar te xam ne euh, démocratie moo ko laaj. li nga xam ne démocratie moo ko laaj mooy nga sañ nga am sañ-sañu xool fam la neex nga dem bokk ci. noonu la nit yi war a mën a comprendre ne ma bokk fii kale bokk fii taxul mu doon suma noon ma bokk fii kale bokk fii taxul ma koy war teg ci loosam ay ay wax ju ñaaw. Mhm. ak di ko di ko sosal loo xam ne sama diggante yàlla xam naa ne defu ko waaye dama koy sos rek. Mhm. parce que yaakaar naa ne su ma ko waxee ndax ay nit ñoo xam ne seen xalaat soriwul ba ñu sànnil ma carte boobu du carte bu barke. Mhm. nit ñi nañu xam ne ku ci nekk doomu aadama nga. doomu aadama bu nekk sañ ngaa am sa diine. sañ ngaa am sa parti sañ ngaa am sa coalition. waaye fo moti foo mënti dem koo àndal doomu aadama la koo àndalul it doomu aadama la respect bi nga bi la war mooy nga respecté doomu aadama teg ko ne mooy yow mhm. su ko defee mhm. élection yi dina jaar yoon mhm. du am problème te kii gagné moom gagné na ba pare Euh, waaw maanaam li nga def ci boppu localité bu commune bu Joal Fadiouth atum 2014 ba 2021 est-ce que par exemple mu fekkee ni sax candidat nga ci élection yi ñu dëgmal muy local yi eh, est-ce que am nga njott ni bu rafet ni population bi mën nañ la falaat. waaw xam nga euh, man loolu lu ma lu ma lu ma leer la xam nga mhm. euh, li ñuy réer mbir mooy ñaareel. nit ñi dañuy def campagne mm-hmm. te duñu def programme mm-hmm. euh, peut seeti ay nit boo amee xaalis joxe fii nit ñi nga xam ne xaalis la ñu gën a gis ne la ca des topp la léeg-léeg kii nekk sa mbokk mais doo tàllal benn programme mm-hmm. da ngay nekk di wax ci nit ñi fi nekkoon ak ak nit ñi nga xam ne dañuy laaj ni yow rek. donc su fekkoon ne nit ñi dañu xalaat ne man bi may ut programme bii laa leen waxoon te programme bii moo tax ñu fal ma mhm. sama loos ca kaw mhm. muy benn mhm. bu fekkee ne nit ñi xam nañu man bi may jël dëkk bi ci yan condition laa ko jëlee lan laa fi fekk kon it sama loos ca kaw donc awma problème loolu moo tax ma nekk maire ma bañ a nekk maire euh, aw ma problème man sama problème mooy sama conscience ba ma d'accord ne nangu naa poser sama candidature li ma ci namoon est-ce que def naa ko loolu mooy suma question dëkk bi ni ma ko fekkee te bañ a xaw ma euh, uñi sutura la ma ca def te nekkuma di ko yuuxu partout mm-hmm. man xam naa suñu borom xam na mm-hmm. ñi bëgg a xam xam nañu mm-hmm. moo tax tey ma nekk maire ba ñu ma nekk maire dama ne sama loos ca kaw kon awma problème yooyu mais nag bëgg naa nekk maire bëgguma nekk maire damay je suis candidat ma succession awma sañ-sañu wax ko li intéressé daal mooy man lañu sas Mhm. ma manager be Benno Bokk Yaakaar am candidature consensuelle ci loolu laa soobu. Mhm. bu dee man xayrul bu dul man xayrul. Mhm. voilà. monsieur le maire ñoo ngi lay sant di la gërëm di fàttali émission gox bi ñoo ngi doon dalal Boucar Diouf di maire bu commune bu Joal Fadiouth ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yu Rewmi FM 97.5. jërëjëf euh, kon euh, auditeurs yu Rewmi FM. Euh, maa ngi ñaan jàmm ju bare bari ci euh, suñu de réew mi di réewum Sénégal. Mhm. Euh, année scolaire bi et universitaire nga xam ne ñu ngi koy tàmbali. Mhm. yal nañ ko passé ak jàmm ju bare bari mu donne année scolaire et universitaire paisible. Mhm. te suñu doom yeeg suñu set yi nga xam ne ñu ngi ciy jàng wala ñuy jàngale. Ah, yàlla may ñu résultat yu baax ci examen fin d'année. maa ngi ñaan réew mi nekk ci jàmm. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. ñu ngi nii di waaj mawlud mm-hmm. yal suñu ñaan yëpp suñu borom nangu ko ñu ngi jóge ci màggal suñu ñaan yëpp yal na ko suñu borom nangu euh, feebar bii day résultat yi ñu ngi ñu ngi beese yal na ko yàlla éliminer fii ci réew mi ak ci àddina yëpp ba mu mayaat ñu condition yoo xam ne mën nañoo liggéey ba koom-koom bi dellu si ci réew mi mm-hmm. élection yi nga xam ne euh, ñu ngi ci waaja jublu mm-hmm. yàlla yàlla def mu doon élection yu yu yu euh, ndox mu sedd guy mm-hmm. mais yu ànd ak dëgg mais képp koo xam ne rek yàlla def na nga gañe nga def ko na mu gën a rafete te it yàlla yombalal la sa mandat ba sa mandat amal askan wi njëriñ. Mhm. loolu rek a am solo. Mhm. jërëjëf monsieur le maire waaw merci bien. mu nekkoon émission gox bi ci rajo Rewmi FM 97.5 ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo émission bi mhm. mën ngeen ko dégluwaat altine bu 19h jotee ñoo ngi leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen et gàmmu à